def ba nga xamante ni ci justice mun nañu mën a téye nit def ay enquête xool ndax liñ koy toppee euh, dëgg la wala dëgg wala mun nañu tamit jël nit daan ko waaye bañ ko dugal forcément kaso wala soo ko dëggalee kaso ba mu def benn diir nga mën ko génne waaye loolu yëpp nag li koy yombal mooy bracelet électronique ndaxte nit tamit munul euh, yoon soxla ko justice soxla ko. wala ñu tëj ko rek nga ne ko da ngay génn ndaxte dañ laa yërëm da ngay génn noonu rek déedéet ndaxte mën na génn tamit ñu soxla ko duñ ko mën a gis euh, mun na su fekkee tamit dafa war a dem kaso dafa war a dem kaso waaye su nekkee tam kaso am comportement bu baax conduite bu baax yenn saa itam mun nañu xool nan lañu mun a allégé ba mu génn loolu mooy indi par exemple président kon ni ma ko waxee sànq muy def depuis quelques années ay grâce yu bari grâce yu bari ndaxte dafa bëgg tamit ñu bañ a garder nit ñi lu yàgg ci prison yi

ku ñu war a daan nga dem kaso nga dem kaso waaye dafay permettre en même temps nag ñu mun a libérer nit ki ñu mun ko bàyyi muy dem di dox ay soxlaam dem sax di mun a liggéey nekk ak njabootam tout en restant à la disposition de la justice loolu mooy bracelet électronique bi. bracelet électronique bi nag am nañ ci 1000 bracelets électroniques donc à titre expérimental lañ koy def euh, am na sax yeneen 1000 yoo xamante ni commandé waat nañ ko dina nekk 2000 bracelets électroniques.